ndakaaru cette mhm. fois si gannaaw bu mu jógee cour suprême suba nag war nañ ko atte euh, mu doonaat euh, dooraat gannaaw bañ kasee li xew fële ci Ziguinchor euh, imam am nga yaakaar ci atte boobu ñu Ousmane ko duggaat ci liste électorale yi waaw moom de bokk na ci li ma jaaxal lu tax ñu bugg ko atte Dakar mhm. te loolu dama seetlu depuis ñu koy atte fële Ziguinchor. Ziguinchor agent judiciaire de l' bi dafa demander nañ ko yóbbu dakaar ñu àttee ko foofu. Mhm. man loolu problème la ma def te moo tax après loolu kenn defu ci débat Sénégal di benn réew mu am justice su Casamance ak bu Sénégal. say li waroon mu sàkk ñu indi ko Dakar. waaw mhm. man loolu mooy sama problème. tribunal bi est-ce que am na compétence pour àtte ko walla déet ñu ne am na compétence bi mu ne toxal leen ko fii indi ko Dakar. lan moo ne dakaar lan la xanaa du tex yi ñii di utiliser même texte yi la ñii di jëfandiku. Mm-hmm. même avocat ñoo fay taxaw. juge bii li mu jàng juge bii loolu la jàng lu tax ñu taamu di ko indi fii man loolu sama problème la. Mm-hmm. sama problème la ñaar jote parce que Sonko état la am ak problème. Mm-hmm. mais état bi moom li mu taamu mooy nañ ma ko indil Dakar juge boobu lànk defu ko. daal di tracé li mu àtte après gis na ne kon xëy na yërndu woon ne gis lim nar a tracé du ko arrangé léegi nag dama jàpp ne juge yi nekk dakaar ñoom am nañ soxla bu rëy. Mhm. comme bi ñu demee fële ñoom ñoo leen wax yóbbu ma fële. Mhm. ndax du dafa am lu mu yaakaar fii bu ñëwee fii xolam sedd ndax duñu wax ne lii la gisoon man damaa jàpp ne tuumaal nañ leen ba pare d'abord ñoom nag ñoom ñooy seet lan moo tax ñoom ñu taamu ne nañ leen indi Dakar. justice bi ne dakaar dafa newul Casamance wala texte yi àtte Casamance ndax nekkul texte yi àtte fii ci dakaar wala la mhm. juge bi nekk Casamance li mu jàng ndax du juge bi nekk Dakar su fekkee ñaar la nag moom musiba bu rëy am na ci réew mi mhm. su dee justice yu région bi bokkut ak léegi justice su capitale bi mhm. man xamatuma kon ban réew la ñu nekk te loolu man jàpp naa ne problème bu sérieux la nekkul ne ñuy taamu naan diw nañ ko àttee ci raison sàngam te te fi ñu koy àttee nekk fu ñu ko war a àttee. Mhm. jàpp naa ne loolu waroon nañ ci teg loxo beneen bi ci des mooy euh, man déggatuma léegi mbiru Ousmane Sonko ñu ciy waxati force restera à la loolu laa daan dégg déggatuma ko ci waaw déggatuma mhm. ko léegi raison d'état la ñuy wax. Mhm. <laughs> ñaar yooyu bokkul de bu njëkk force restera à la loi lañ daan wax waa ji na dem justice na dem ci yoon mais léegi raison d'état la ñuy wax. waxatuñ waxu droit. Mhm. waxatuñu waxu loi léegi dañ ne raison d' état la maanaam tey état bi moo am lu mu bëgg loolu daa war a nekk bu dëppook ak texte bu dëppawul ak mhm. texte lii dafa war a am raison d' état loolu nag gis nga mu Moussa. Mhm. précédent bu doy waar la. fi muy ñuy jëmee baaxul. ah non baaxul parce que mënoo woo nit ñi ci droit droit droit droit loi loi loi ba nu yëg si nga ne léegi raison d' état moo taxaw benn catastrophe bu tax ñuy wax raison d' état nekku fi. ndax pour man Ousmane Sonko du du ab euh, euh, étranger. Mhm. du état bu jàkkaarlook état wu Sénégal ab doomu Sénégal la buy politique nekk benn politicien comme ay moroomam di laaj nañ ko bàyyeeg waa Sénégal bu ñëwee su ko réew mi wóoluwul ñu rejeté ko su fekkee dañoo gis ne moom jubul baaxul ku dangereux la nañ ko wax askan wi te déglu leen. jumtukaay bu ñu am nag rajo yu ñu am tele yi nañ ñu wax nu Ousmane Sonko mel ci danger léegi nag après ban ñu xool. mais mais boo boo boo gisee tey jii euh, ñu bëri di am euh, xel ñaar ci bokkam ci élection présidentielle yi parce que dañu naan. li fi des suba bu ñu ko àttee moom bu amee dëgg ñële nañ interjeté appel moom bu ñàkkee dëgg dana interjeté appel ñu delluwaat cour suprême encore kon mbir mi jeexagul te app élection présidentielle yi déjà ubbi nañ euh, conseil constitutionnel ubbi na ay buntam euh, ku bëgg a déposer sa candidature mën nga commencer déposer fii ba le benn 26 ñu jàpp ne app bi xaaru ko parce que boo xoolee saba si fay ak suba bi de jour pour jour déjà def na deux mois mhm. euh, te fi toon war na am ñaar ñu xaar ñoo xamante ni bu ko naree jàppaat deux mois dañuy dugg ci clôture day for clos ah dootul bokkati mhm. bokkam ci élection yi waaw man bokkam ci élection yi ñi ko bëgg a jaarale ci ñoo ma jaaxal hmm. sëñ Moussa képp ku bokk bennoo koo woo fii ci plateau bu ñëwee am lu mu lay wax sonkoo du bokk. Mhm. loolu état bi da koo a wax mu leer <laughs> depuis projet Mame Mbaye Niang dañ ne ko doo bokk élection doo <laughs> loolu moom dafa leer ñoom seen programme mooy doo bokk ci élection yi. loolu problème la. Ah, bu rëy man jàpp naa ne doo bokk ci élection yi doo bokk moom euh, justice moo ko war a ah, wax ko war a wax way te bi procès bi jàllee dana ko noo des na deuxième tour xaw ma deuxième vague xaw ma deuxième na mm. am na nu ñu ko ti noonu. ne ko balaa ñu tàq li ko yow doo bokk ci ay élection mm-hmm. man nag doo bokk ci ay élection moo ma jaaxal pour man su fekkee gis nga ne waa ji baaxul askan wi bugg ko yow yaa baax yaa jub yaa sell yow la askan wi wóolu dem leen ngeen taxaw ci kanamu mm-hmm. askan wi ñu xool leen yéen ñaar mais man dama jàpp ne bu dee ci loxo état bi rek la des du bokk yàlla nag mooy dogal mm-hmm. loo tax ma gëm ne li yàlla namm mooy am waaye bu ñu doon àtte li nguur gi bëgg mooy Ousmane Sonko moom du mën a bokk. même bu ko justice joxoon dëgg. duñ ko nangu. li état bi bëgg mooy du bokk. léegi nag mu des lan la yàlla namm ci moom. Mhm. yàlla moom bu nammee ne day bokk bu ñu doon dem ba dernier minute carte gi dana jaxasoo te dana bokk man nag dama jàpp ne li doon intérêt réew mi moo doon mu bokk. Mhm. man loolu laa gis. loolu nga waaw man li ma gisoon mooy na bokk na Amadou Ba bokk na xalifa bokk na ñoom ñi présenté nañu dem. askan wi xool ki ko doy. mu hmm. dénk ko alalam. loolu mooy li normal gis nga boo ko deful. Hmm. ki niy fal sa dëgg kenn mënul nangu légitimité am parce que Sonko dafa am taux électoral bu mag nag boo xam ne daf ko téye ci loxoom. bon mënuma wax pourcentage waaye ñëpp xam nañ ni bu demoon élection bu gañewul kuy gañe moom ngay ànd hmm. ak. képp kuy dem deuxième tour moom ngay demal. loolu moom xel yi natt nañ ko bu yàgg. te élection yi fi jaar wane na ci dara. poids bu toll noonu nag boo ko éliminer ci ay élection ñi gagné. Mm-hmm. sa dëgg-dëgg munoo leen a jox majorité réew mi. Mm-hmm. léegi nag kooku li nga koy indil mooy day dem ba gouverner mm-hmm. commencé ay problème di amaat. Ah. ndax légitimité amul légitimité même bu dee am nga légalité. amoo légitimité. deux fois trois fois ngay def mbedd mi commencé wat ay mars ak ay ñaxtoog parce que nit ñi faluñu la dañ laa fal ci ay texte loolu nag jàpp naa ne lu ñu war a moytu la parce que réew yi yëngutu yëpp la leen yëngal. kañ fa teg majorité bi tegu ko fa. wala dafa dem ba majorité bi doyal ci moom te nanguwu mm-hmm. faa wàcc. Mm-hmm. jàpp naa ne li gën daal mooy ñu fexe bàyyi ko mu dem. Mm-hmm. bokk bu ko askan wi di sanctionné ñu sanctionné ko. buñ koy tànn ñu tànn ko buñ koy tànn ñu tànn ko buñ koy sanctionné ñu sanctionné ko. jërëjëf euh, imam a ah, ah, ah, atte suba bi imam comme yi daan am rek. ñàkk yaakaar lool sax. amoo ci yaakaar déedéet amoo ci yaakaar. parce que man moom xam nga man euh, laa yuldaxul muminu min joxrin marratayn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jullit boo dugalee sa loxo ci pax am lu la matt nee na doo ko fa dugalaat parce que justice bi am na doxalin yoo xam ne man xam nga kañ laa ñàkk yaakaar dëgg-dëgg. Mhm. nga xam ne vraiment daf ma topp ba léegi keroog biñ ne docteur bi nee na viol amul ba pare viol amul lu mësul am certificat médical bi ne viol amul. ñu ne def amul waaw waaye dañ koy yóbbu chambre criminelle waaye léegi ngeen ku def loolu loolu su amee ci justice su am réew mais sénégalais yi dama naan dama naan wallahi justice bi gravité bi maanaam ci li mu nekk kenn mënul wax ni mu grave mhm. Moussa loolu noo koy layee c'est-à-dire que man dama naan loolu nag ko sénégalais yi loolu nu ko seen xel mën a nangoo ku sañ loolu nag sañ nga lu ne ci àddina sañ nga lu ne lu ne mhm. li koy confir li koy firnde tout dans le monde mooy certificat médical mhm. ñu ne certificat médical bi nee na viol amul te loolu moo indi musiba wi yëpp mhm. waaw amul waaw amul amul de amul ah waaye dëgg la amul ah waaye dina nga di nga dem chambre criminelle mhm. te dem na chambre criminelle ba mu demee ñaata criminel la fa fekk ñu ñu war a atte ñoo xam ne kañ lañ fa tëdd ñu tëb ñoo ñëpp seppi dossier gaawal ko atte ko ba tey conti maxi bi ñëw léegi loolu booy rafet njort foo koy teg booy rafet njort foo koy teg. Mm-hmm. léegi nag. lu ci am daal waaw li ci am li ci li ci am mooy démocratie moo dellu ginnaaw moo dellu ginnaaw lool lool état bii moom xaw ma lu mu defal réew mi de mais yokkul démocratie. Mm-hmm. waaw régime bii nii wallahi yokkul démocratie. da koo delloo ginnaaw da koo delloo ginnaaw. Abdou Diouf teg na brique ci démocratie. Mm-hmm. keroog ba ko Ablaye Wade gagné mu nangu koo jox réew mi xeex bu ne xeex nañ ko mosul tas parti Ablaye Wade Macky Sall gagné na ko mhm. mu jox ko réew mi diirant li mu fi nekk yëpp mosul tas parti mhm. opposant yi mosu ñoo jóg dëgmal élection muy tëj kenn mosul am kii nag ci ci ayam opposant yi ñu jàpp na ñoo fi gën a am doole yëpp tëj na leen kaso mhm. ñuy génne leen réew mi taxaw nga xam ne li liñ ko bàkkee mooy opposant bu dëgër bu nekk doo dem élection mhm. dinañ wut luñ la luñ la luñ la taqal ba doo bokk loolu mooy delloo gannaaw démocratie loolu nag way wu ñaaw la mhm. wu ñaaw la léegi beneen bi aussi dafa am combat yoo xam ne guddal jël lay doon rek mhm. gis nga dafa am loo xam ne du problème mu nit problème mu population la gis nga peuple bu décidé ne peuple bi ne damay changer même boo leen yéexalee changement day am peuple masul bëgg dara yàlla xañ ko mën na yéex wala mu gaaw problème mu Ousmane Sonko xëy na yàlla daf ko def mu nekk benn leader am lu yàlla def ci moom mais population africaine yëpp ñoo am benn yëg-yëg yëg-yëg bi mooy daw Mali mooy daw Burkina Faso mooy daw Niger donc tey jéem gàllankoor Sonko yi population bi munoo leen gàllankoor. Mhm. dañu am lu ñu bëgg loo xam dafa yàkkamti te dañ ko dafa war a am. loolu Sonko ñëw keneen ñëw ci yam li ñu bëgg day am. day donc suñu. dirigeant processus la. waaw processus la il faut ñu ñu nangu ko daal di si jëfandikoo xel. Mhm. Samba Sidi àll kii bi bi saaba si di <laughs> kii dama nekk biti ñu laaj ma ne la man de ooma ci yaakaar mm. moo tax biñ ne waa ji nee na nañ ko delloo man daf meloon ni ay gént ci man saa si ni ma bettee waaw ni mu ma bettee xam nga lan laay wax dama naan est-ce ba si bu saa si ni ma bettee keneen dootu ma ko bettee <laughs> dama naan non keneen dootu ma ko mën na nekk non foogu ma ko waaye da ngay ñaaw njort da ngay <laughs> ñaaw njort rek na man attekat yi aw ma ci ñoom da ngay ñaaw njort rek ba ñu bett la en tout cas loolu day wone kii bi am suñu diggante rupture bi ci am ak manque de confiance bi nga xamante ne mm-hmm. moo ci am à chaque fois rek bu ñu du dëgmalee benn mbir ku nekk di mm-hmm. interpréter. Mm-hmm. parce que am nga am am nga yaakaar ne daal mbir mi dana doy waar. boobu nag mm-hmm. bu ci génnee. imaam euh, point amoon waxtaanee. jeexal nañ ko pour ma bàyyi la nga de la fin. waaw jërëjëf mooy ñu jaajëfal rek. ci ni nga déroulé émission bi am na solo ñaanal la yàlla yàlla barkeel liggéey bi. ñaan kër gi yàlla suqali ko. amiin jaajëfal sama soppi bi sama xarit sama imaam. <laughs> imaam Hamad Amin Dramé. macha allah namoon nañ la lool wax dëgg yàlla parce que dafa tukki woon ci plateau yi. waaw mu ñëw rek song ko mën a sa waay xanaa yaram bi moo doon laaj <laughs> moo doon laaj émission yi mais alhamdulilah jërëjëf imam ñu ngi lay ziar sa waa jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf imam imam waaw waaw sant sant bu baax rek ñun tamit euh, di ñaan yàlla li ñuy wax yàlla na ko nit ñi di jël